mooy sëñ Moustapha Sy ci bon suñ mbokk mi inna rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli non tayib soose rek imaam tayib soose da ngeen a wax boobu ni mu fooree képp kuy wax rek war nga koo wax parce boobu yàlla ngay ñaan mu ubbi sa dënn mu fexe ba li ngay wax nit ñi dégg ko mu fexe ba sa làmmiñ nit ñi comprendre li ngay wax te gannaaw boobu ñaan bu ko ëpp doole amul di nuyu délégué quartier bi bi nga xam ne nii moom moo ma jox ah, kartam fii nag sama première expérience la ci aménagement des terres ma ko séddee ay nit waaye xaw naa ko réccu waaye doomu aadama du réccu dara ndax xëy na su ma ne bañ koy commercialiser fii ay vingt mille francs la mètre carré danga naan yow xanaa wéeru waaye xëy na vingt mille francs yooyu ba ma ko jëlee liggéeyaan naa ci liggéeyaan naa ci ba jur lu ëpp loolu kon da gis ay nit yu bari yuy récc sama suuf si ma ko waaye jàppal lan nga ci def ba tey nga mën a taxaw kon délégué maa ngi sant dama yaakaaroon sax loolu ñu bari xamuñ ko may wax rek ne dafa am question boo xam ne ñu bari nañ koy posé di wax ne lu tax ngay def lii lu tax ngay sonal sa bopp dëgg la li tax may sonal sama bopp damay dégg bu baax jàngkat yi di wax ne ñun tamit nañ ñu boole ci yëf yi kañ la jox daara kañ la ñuy ñam daara liggéeykat yi sonn di dugg ci géej gi di sol fi ci Sénégal te ku ci góorgóorlu dem ba Amérique wala nga dem ba yeneen réew yi sa compétence day feeñ nga wóor na ne yow ku valable nga ñu nekk ci ambassade yi sax am na yoo xam ne nii da ngay wax ne li ngeen li ñu xam xam ngeen ko ñooñu nag yàgg yu intellectuel yi sax ne réew mi tànk mi ngi doxee benn idéologie benn xalaat du jëm ci kaw te loolu dañ ko war a teel ba ñuy am indépendance ndax xam tànn quatre-vingts députés yi njëkk ci Sénégal kilifa yëpp dañoo daje woon Serigne Fallou jox ko baat nañ fexe ba nañ jël quarante ñu jël quarante yi waaye gis nga gars yi ñoom lu ñu wax ba noppi duñ ko respecté ma waxaat rek na léegi nag loolu bu dee Sénégal képp dañ ci d'accord ngeen am candidat bu am différence ak yeneen bu ko ñewul élection yi japp leen ne fekk téeméeri ak kenn du ko jëmati jëmati ndax kat Serigne Cheikh Gaynde fanno Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum Baye ñass ak ngeen tanté won nañ ko ëpp na juroom fukki at man ma koy jéem tanté waat bañ nangul mako ndax ñom sax nangul ñu leen ko woon waaye man tànte naa ko nangu ko ndax doomu daara laa sëriñu daara laa ma wax rek ne dafa am loo xam ne nii ku ko dégg ci alxuraan da xam ne soo jógul tey jóg topp lu jëm ci nit ñi ah waxuma ne da am bàkkaar de waaye am na farata joo deful ku ñuy wax Xaaruuna dafa nekkoon ku am alal ci jamono jamonoy yonent yàlla Moussa nga xam ne nii caabi yi mu denc ay koofram caabi ji ay caabeem ay ponkal ñoo ko doon yenu waxuma la benn ponkal ay ponkal ñoo ko doon yenu buy déplacé yàlla may ko alal ju bari mu bew ñu ne ko bul bew ndax yàlla bëggul ku bew dama lay wax la ko yàlla wax walla ay nitam bul bew yàlla bëggul ku bew na nga fàggu ci lal ci li la yàlla jox nga defar ci àdduna ak àllaaxira sëriñ Tuubaa daf ne axastu min al yaaw zaadin lil janaan ci sama àdduna laay defaree sama àllaaxira mu ne ko nag wala tansa nasiibaka mina dunya waaye bul fàtte sa cër ci àdduna na nga dund dund bu baax waaye na rafetal ne na yàlla rafetal waaye bul yàq ndax yàlla bëggul yàq jamono bii ñu toog ku dégg aay yii da ngay dugg ci lii ndax kat mënul ne politique mooy lépp mooy yor àdduna mooy yor Sénégal gii mooy lépp ba ku ñu wax politicien nga mel xam nga loolu lu muy niroon ñu demoon ba mu yàgg na suñ diine yépp ci imaam ji la nekk te bu ñu wax imaam nga mer jàkka ji dinaa ci julli waaye imaam yi nawloo ma leen am na lu des kon tey nañ nekk senegaal nawloo ma politiciens yi am na lu des xam nga lan moo des mooy ña ko yor ñun ñoo naaloon politiciens yi ba pare dégg jël suñu alal suñu doole suñ àdduna jox leen ko kon nag da ngeen a waroon a fexe fii ñu jëm da ngeen di dégg ngeen nawloo ko wóolu koo dégg seen alal nii léegi wóolu koo jox seen doom mu yar leen ko loolu dañ ko war a xalaat ndax li ngeen di dénkaane moo ëpp loolu man nag dama bëgg nit ñi lañ ne programme mais man dama leen di wax programme mais lan laa leen di jaay mooy candidat bi man sama bopp laa leen di jaay ndax dañ ne élection mooy lan mooy rencontre d'un homme avec son kon li nit war a njëkk a jiite mooy wax sa bopp li nga def ba man koo prouver ndax programme mënoo cee prouver dara bañ amé indépendance ak légui Dakar sera comme Paris nangam sera comme nangam nangam ko képp xamna la toll waaye lenn diko def moy ñiko wax musuñu ci def dara lo xam ni man na justifier li tax ñu diko wax kon dama gëna bëgg ngeen focaliser ci profilu candidat yi ak seen jaar-jaar au lieu que ngeen di focaliser ci ay bind dee ñun suñu bind baax trop waaye bind te amul ku ko mën a exécuter amul njariñ lu oto rafet rafet lu mu luxe luxe te amoo chauffeur borom sareet bi dana la jiitu fa ngeen jëm man nag damay wax ne dama gëm ne doomu daara liggéeykat mën na yóbbu Sénégal fu sori bu ñu àndee bu ñu àndee waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu yàlla mu ne na ngeen jàppante ci buumu yàlla te bu leen tàqali ko lu mu ca teg wala tanaza'u fa tafsulu wa tazhaba bu ngeen xëccoo da di perte lépp seen doole dem ku ñëw neewal leen doole Sénégal su ma nee man damay proposé euh, programme boo xam ne ñett pilier la cinq cinq pilier xam nga cinquième président la ñuy fal cinq pilier la cinq continent lañ am cinq euh, baaraam lañ am julli cinq la juróom euh, euh, chiffre cinq dafa am doole kon nag bu yàlla dimbalee ñuy dem ci chiffre cinq waaye nañ ko valoriser waaye nañ valoriser chiffre cinq bu ci jiitu mooy ànd nawle dañ ne sénégalais yépp a yem nañ fexe ba yemale sénégalais kenn ku ne sa sécurité sa lépp ñu yem ci mu bañ a am ku ma am ndey am ku ma amul ndey ñu fexe loolu tamit ñu ànd liggéey liggéey liggéey bu rafet jariñante te wàññi wax ji ak politique bi basé ko nag ci savoir ak xam-xam mooy daara yi le travail mooy tool bi ak penc mi comme li nga xam ni moom laa leen wax ma ma tënkal leen sama jaar-jaar man ci ñeenti point mooy dàngal daara laa jàng naa daara nekk naa professeur parce que bi ma jàngee kokki ba mokkal alxuraan ñun dañuy jàng arab lii nit ñi di jàng fii ci école bi nañ koy jàng primaire secondaire def BFM en arabe ba am xam nga lan moo des mooy transition nga jël loolu man ko transmettre ci làkk bi nga moom wala làkk bi nga beneen làkk kon tey ñun liñ jànge suñ demoon tey ba ci japonais yi suñ tegee benn japonais suñ côté dégg ñu sa japonais mais bu ñu waxee mu traduire la ñun danañ xam ne ki wax am na xam-xam loolu rek mooy am solo ndax yàlla ci boppam sax nee na wa maa arsalnaa min rasulin illaa bi lisaani man yàlla dama yónni kenn ci ah lu dul ci làkku nitam dëgg la tubaab yi colonisé nañu ba sopp sunu làkk on est obligé de mooy di làkk làkk tubaab ba bañ ci mën a génn. su fekkoon ngooñ la ñuy lekk sax wala ñu ne bëggatuñ ngooñ nañ dem wuti lu remplace ngooñ waaye boo ne du ma lekk ngooñ da nga leer xiif kon d'accord naa ñuy wax ne làkk tubaab lañ war a làkk waaye nañ fexe génn ji rapidement wala buñ ci génnul tamit ñu boole leen dama wax léegi kenn ma ne ko maa ngi doog di am différence wu ñi jàng tubaab doog di dem ci daara ji ñi jàng tubaab doog di dem ci daara ji wala ñu jàng tubaab yem ci tubaab ba ak ki jàng daara dem ci tubaab bi wala mu yem ci daara bi dañ maa wax loo xam ne lii léegi dama ko xalaat mooy dañ daan wax école ñu ne ëllëg bu nelee booy wax ci biir école ba wax baatu français dañ lay jox symbole symbole boobu lañ ci jublu mooy pour humilier la ñu ne la reetaan mais quelle humiliation d'un peuple yàlla xam ne ne loolu mosuma ko dégg ñaari fan yi laa ko dégg te lu siiw a siiw a siiw la lu siiw a siiw a siiw la ma ko waxee mu ne yow yaa ngi woon lool ma ne ko laa ilaaha loolu xoomu lu suñ nit ñi wala kilifa yi di ko seetaan sa làkk bi nga moom ñu ne la boo ko làkkee dama lay humilier ah nañ ci kon dina xaw ma am ko léegam kon kon amatu daan tere sol tubéy tubaab pantalon su ko soo ko daan indi sëriñ bi ñu joxoo ko sëriñ bi day teg lancet dagg ko fii ci suuf dagg bi ci des ne la jëlal ñaar yi nga dem ñëwaat ko beneen tubéy te yooyu yaay débrouillé ba ñëw ko ñun ko daan tere maa ngi fàttaliku bu baax sëriñ Amar Saxir mu baax mi bi nga xamee ni am na téléphone mu am kum fa wo ne ko del wuyu telephone waye ni nga tere nañ ni ñuy wax baat tubaab benn waaye téléphone ne ne allo rek mu ne ko kare mu seen ko ne ko lutax tax mu ne ko yaa wax bu ñu ko wax allo mu ne ko dede dama ne la ajib iza khila allo kuy wote lakin la taqul allo boy wote ngeen xam mag ni niñ amoon xam-xam teggin la ko jangal ajib dana ko tontul ku ne allo tontu ko waaye yow bu lox allo waxuma la dem kenn wax allo dama ne la bu lox allo pour nga xoolee ni ñu doon jàngale bien que yow moment ñu lay tere fële ne la yow bul wax olof mais kii nga xam ne nii tubaab defalu ko dara ba nga ko waxee tubaab xasu la la tontu ko pour ñu xam loolu kon nag man programme bi dafa am yu bari du ma ci yàgg mooy mi ngi ci internet xool leen ko dama leen di wax rek ah vision bi gis-gis bi ndax programme boo demee ba di ko détaillé rek seddoo ñi nga war a liggéeyal ëllëg mënoo ne damay wuti gouvernement bu compétent damay wuti technicien damay wuti lépp nga bindal leen li ñu war a def nga xam ne nii danaan leen leen appliqué ko looloo tax benn programme mosuñ ko fi appliqué ko programme da ngay joxe vision bi da ngay joxe vision bi bàyyi ko ngi ci des ñu def yàlla joxe na ko exemple alxuraan yàlla waxuñu ni ñuy jullee waxuñu ni ñuy woore waxul sart yi daf ko wax julli leen waaye waxul ne rukkoo leen nii si jóot leen sàbbal leen dafa bàyyi li ci des yonent yi ak borom xam-xam man nag sama programme bind naa ko waaye wax bi laa wax wax bi dama koy bàyyee borom xam-xam yi ñu décortiquer ko te man d'accord naa suñ d'accordoon su ko ñëpp d'accordoon dernier jour campagne vendredi la presse tout le monde ngeen dajale yi candidat yëpp yéen ngeen décortiquer programme yi posé nit ñi question yi kenn ku ne wax la lan la mas a def ci àddunaam ak nan la la koy defee je pense que da ngeen bu baax électeurs yi man dama ne dama bëgg ñu dem ci éducation bu ànd ak valeur ak qualité de vie mooy li nga jàng mu jariñ la ci nan nga koy jëfandikoo ci sa dund exemple doomu aadama war nañ ko jàngal ci njàng moom nekk jom yar ak teggin ñett yooyu bu ko nit amee dana jariñoo njàngam lu njàng mi bari bari bari xam-xam bi bari bari boo koy appliqué du ci boole sa jom doo ci boole yar doo ci boole teggin njàng moo amul solo kon dañuy fexe ba nga xam ne nii dañuy fexe ba type sénégalais boo xam ne nii dana jël ay valeur mu nekk valeur yu positive boo xam ne nii dafay préparer mu mën a insérer dans la vie active ak contribuer bu baax ci développement national am santé bu wér ndax jàng nan ngay amee santé ci effort ak nan ngay lekke bu baax ak tamit nan ngay mën a dimbalantee ak dimbale sa bopp ak nan ma ngay mën am qualité de vie ci état bi yëpp ko mooy li nga xam ne nii mooy sama objectif mooy favoriser l'éclosion d'un Sénégalais de type nouveau ancré dans ses valeurs bien préparé à s'insérer dans la vie active et, et à contribuer pleinement au développement national disposant d'une bonne santé et d'une bonne alimentation, euh, d'une bonne protection sociale et d'une bonne qualité de vie à tous les états de la vie. jël leen ne ëllëg bu ma joxee ministère de l'éducation nekk sama liggéey lii rek laa koy wax ne ko demal li ki des moom moo war a travailler ci un programme exécutoire ñëw ñu wut moyen ñu liggéey bu loolu paree mais programme yooyu sëriñ bu bind na programme mais pour expliquer dafa am loo xam ne nii pour ñu gën koo wax bu

mu ne lu ma leen bëgg a wax fi nekk boobu te yor alal joo xam ne xamul fu jógee jëlee leen ko mu ne na ngeen ba mbir mi bu mu nekk transformé héréditaire mooy man maa yoroon na sama doom yor wala sama xarit yor wala sama mbokk yor nee mu fi amee mu ne ki ñuy tànn mën na jóge fu mu ne groupe social bu ne mën a nekk baykat man a nekk artisan man a nekk pêcheur man a nekk éleveur mën a nekk journaliste waaye léegi ku amul jaar-jaaru professionnel administratif rek ñu ne la looy loolu du ñu waxtaan rek nga war a xeex même université même médecin yi mu jël exemple ñooñu ñooñu sax ku ñu la loo moo tax mu ne ki ñuy tànn mën a jóge fu ne mu ne woon na ngeen tàmm nit bu am xam-xam te rek liggéey na ngeen mu ne bu leen fexe ba li ngeen di tànn yem ci benn groupe li waa ji wax naan xalaat ma ngi bàyyi xalaat xalaat doo fi jaar gars yi lañ def dañoo jël yëf yi ku bëgg dem ñu la doo dem ñu ne na ngeen fexe ba fondé

ma wax rek ñu dem ci li ma tuddee tool bi damaa wax barki démb ne mën naa créer cinq millions d'emplois ci cinq ans un million bon ndegam man ay xarit fu ne laa am am ku ma woon ne ma non loolu mënoo ko prouver ma ne ko yow yaa tax man maay woote danaa ko prouver tey xam leen ne lii daje la boo xam ne daje bu am surprise biñ ko tëggee léegi ñaari fan la ñaari fan te mën naa taxaw fii nit ñi war la ngay xool sànni ba ci kaw waaye est-ce que nit ñi danañ la déglu au maa ngi wax ak lu mat 1000 personnes mais ñu may déglu moo tax ma ne temps en temps yi baax na c'est l'animation mais c'est pas efficace pour man te loolu ci compétence la ci bokk mooy nga xam ñi lay waxal foo leen di jaar moo tax ma ne naa indi ay mais wax ak presse bi j'espère que ñu bari yéen ko defal direct ba lu ay millions yi ñu ñuy seetaan wala bu ñu ñu seetaan tamit dañu ko garder seen archive yi pour que nit ñi mën ko seetaan lii mooy meeting bu am solo et man ca mën naa ne yëpp tam ranaloon ni ay nit toog ku ne laaj sa programme lii loo koy def lii loo koy def et ce sera beaucoup plus utile et te incha allah bis bu ma yoree réew mi boobu danañ ko changé ni koy changé mooy nga am ñu may la yow parti politique bi ki jiite ngay man di wax ak nit ñi di leen déglu que ñu mën a dugg ci ay affaire meeting yeeg yooyu demal xoolal États-Unis wala yooyu ñooñu ëpp loolu mais nii la ñuy def waaw parce que li nit war a gën a tiit imaginer ma dem suba mu fees dell heure liggéey muy lundi damaa war a kontaan wala damaa war a damaa war a mer ah <laughs> non damay mer xam nga lu tax dama naan ñii ñëpp amul liggéey bu am liggéey doo toog ci naaj bi di teeru nit waaw man damay mer damay tiit man lii laa bëgg bien que danaa am def waaye wàcc heure liggéey ajjuma wala ban wala nga taxaw nit ñi wër la heure liggéey nit ñi liggéey nga wër la te daw di topp sa gannaaw wallaahi dañoo amul liggéey te dañoo yaakaar ne boo yore réew mi da nga leen wutal liggéey kon nag kuy laaj baatu réew mi na nga def très attention man li may laaj bu ma ko mënul du ma risque sama àdduna ci loolu parce que man am naa lu gën loolu yàlla ma ko defal te loolu ma ko yàlla defal loolu ma ko yàlla defal damay delloo ci xaaruna rek bam ne ko bul bew jëluma ko ne damaa bew bu ma bewoon kon damay dem toog xam nga dañ fay toog mën naa am sax élection yi dama fekk waaw kon nag bëgg rafetal ni ma yàlla rafetale moo tax may def nii léegi développement dama ne développement bi économique nañ ko accéléré mu gaaw def rupture rupture ni daan gérer économie état mun a créer emploi un million d'emploi yi may wax du administration bi de laa yokk de administration bi laay tibb jox ko ci privé bi ñu am doole ñu jàppale leen ñu mën a liggéey je donne un exemple ci sama programme su ma nee damay boole ministre de l' et environnement mooy mën a former ay soldats dana foore yoo xam ne ànd bi dañuy xam mbay dañuy xam boo demee exemple ci kër diine yi nga gis ne kii am na capacité consommateur mooy li ñuy dundee bari na li ay njabootam dundee bari na am na main d'œuvre boo xam ne ñi ngi nekk ci wetam nga jël ay boroomi xam-xam jox ko jox ko suuf jox ko jiw jox ko boroomi xam-xam ne ko bàyyil ma jënd ndax li may jëndi xaalis bi ma di ko jëndi maa ngi koy jox baykatu France ba di ko jox nappkatu France ba di ko jox éleveur France ba ñun Sénégal loolu la ñuy suñ gouvernement moo ñu yilif moom mooy jël xaalis boobu di ko jox ñooñu ndax ñun la ñun économistes yi ñooy dem di jënd bitim réew kon gouvernement bi moo ñu bàyyi ñuy jël xaalis boobu di ko yóbbu bitim réew di ko jënde foofu au lieu que ñu jox ko suñu baykat yi ñu bay ceeb jox ñu ñu dundee ñu bay mboq jox ñu ñu dundee ñu napp jox ñu imagine Sénégal di dem importe jën Mauritanie wala Maroc wala Chine humiliation bi ñu tegoon ba léegi ñi ngi ci te fi ñu jëm moo gën a garaaw fexe ba def sa waa dëkk ñu gëm li ñu seen bopp président coréen bi def ne woon ci ñetti affaire ñëpp dañ ne coréen japonais moo ko colonisé woon am na jamono boo xam ne boo waxee coréen ci biir Corée ñu duma la waaye moom bi mu ñëwee dañ ne ku wax japonais ba duma la tey coréen déggatul japonais mu ne ko lu muy fajoo mu ne ko sa suuf coréen boo gis fii boo tukki yor na pot boo xam ne ci biir kër la am benn mbànn mu wéy kii ka def ci suuf dañ ne ko boo tukkee bu sa biir méttee wala sa feebar naan ko da nga wér da suuf si du des si du des foofu dana ñëw te gëm nañ ko te ñu ngi koy def kon fexe ba emploi am te loolu mooy sama programme ba nga xam ne nii ah, dañuy créer massivement des emplois sur tout le territoire emploi yi mënuñ ko créer fu nekk Dakar rek sur tout le national. Et inscrire définitivement le Sénégal parmi les pays émergents. xool leen l'accélération du développement durable et de la souveraineté économique. Moi, je ne parle pas de souveraineté alimentaire, je parle de souveraineté économique. dëgg la nous avons une monnaie waaye nañ contrôler suñu monnaie ba mën a contrôler dollar. soo demee Chine am na yuan waaye soo demee Chine boo tey soo boo am ñu ëpp jënd ko yuan boo am ñu dollar moom jënd bu doon bàyyi dollar yi rek économie américaine daanu waaye boo xam ne ne économie américaine du daan économie mondiale du daan ndax américain ñoo te technique boobu fexe ba seen dollar dañuy commercer Nations Unies la ñuy seen fast food la lekk ku wax ne balaa mën nga wax baatu américain ok ñoom ñoo dajale moo tax dama ne dañu àdduna bi amul xaalis ci àdduna bi américain bu ne moo ëpp endettement sénégalais waaye dama ne dañu àdduna bi luñ bëgg rek su ne ay am beneen bi mooy mooy li nga xam ni moom laa waroon na njëkkee li ñu waroon na njëkkee waaye li tax njëkkee wu ko mooy dama leen bëgg a ne réew mu koy discuter tardé nga mooy boo toogee ba naan samay institution nañ ko defal nañ defaraat justice bi nañ defaraat lii boobu nga tardé normalement ci pays bu baax loolu koy discuter tegu leen président français day wax nan lay def réforme économique réforme sociale réforme éducative mais réforme juridique réew développement passé nañ ko passé nañ ko ñun nag foofu lañ toll li situation campagne situation élection yi nit ñi amul temps ci discours di ci discours règle wuñ sunu bonne gouvernance l'état de droit et la bonne gouvernance man boobu li ma ci renforcer les institutions pour garantir la démocratie

waaye lu tax mu man lii sentir na diggante bii président bi nekkatoo fi daanaka war naa am mu am liberté waaye man je me demandais su doon 2019 situation bii mu am est-ce que dana am liberté comme Sénégalais est libre Sénégalais est libre il il est il est du nit ku ñu mën a corrompre sëriñ am na liberté il n'est pas corrompu mais dañ koy tegal condition yu tax ne loolu mënut a am liberté mooy nga fexe ba teraanga jël yoon yow mi muy àtte mënoo ko caa génne nga fexe ba mu am lu doy ba mënoo ko corrompre loolu lépp daf nekk ay état yoo xam ne boo ko réglé wul mënut a am xam nga tubaab yi ñoo gaañ su ngeen déggee ci wolof ñu naan diw jàmbur la. xam nga loo amoon mooy mag ñi ña fa nekk même même ci Dakar gi léew yi buñ daan tànn ki leen di àtte dañuy daan ab jaamu indi nga xam ne ni du far fenn te kenn du fa mën a moo taxoon ñu dem jëli Serigne Dakar ci kaw léegi te rek continuer ci li ma doon wax réduire les disparités entre les territoires et quatre-vingt-quinze pour cent suñu ressource il faut que ay textes yu ko mën a dindi du président parce que yow boo ko dindee jógoo ku leen ñëw dëgalaat ko institut moo ko dindi à travers une décentralisation et un aménagement harmonieux du territoire national pour ñu dindi loolu il faut que ñu def décentralisation bu baax ak aménager territoire ba ku ne sa war a ndax bis ba nga xam ne ne mooy bisu tabaski ku ne di feer dina am loo neex ku ne Sénégal un moteur d'intégration régionale en Afrique et un acteur dynamique dans la concorde entre les nations du monde mooy fexe ba Sénégal nekk moteur intégration fii tubaab bi ñu fi ñëwee gënoon kàttan laa yor bu ñu ko bàyyi bu ko bàyyi ba keneen di gën fexe ba règlement et Afrique mooy Afrique lu waay soxla ci réew Sénégal day ñëw am ay acteurs yu dynamique yoo xam ne dañuy fexe ba bokk ci àdduna bi Sénégal. bokkagul ci àdduna bi ñu ngi ci àdduna bi waaye bokkagul ci àdduna bi wala Afrique sax ñu ngi ci àdduna bi gën fee yaatu ëpp fi population wala bokkagul ci àdduna bi ndax fa ñuy décider Nations Unies mooy conseil de sécurité conseil imaginez conseil de sécurité Nations Unies léegi la ñu doon naan dafa am benn baat kon bokkagul loolu nag ci loolu laay gën xaw a gën a yàgg ndax mooy li nit ñi gën a intéressé mooy débat bi. débat bi euh, Aliou nga génn loolu mu ngi nii dañ koy génnee mooy débat bi li ci bari ñoo ko bokk mais tuuti lañu am wuute ci ñett mooy nan la ñuy ba débat ci assemblée nationale mooy fexe ba assemblée nationale bu nekk assemblée de nekk assemblée boo xam ne nii comme moom mu gën a gis boppam ci département bi waa département bi gën a gis boppam ci kaw moom ñu yokk ko doole may ko ba nga xam ne nii du taxaw benn ministre di ruus wala muy am gàcce wala mu di ko tàgge pour mu jox daal. fexe loolu ba justice bi tamit nekk justice bu indépendant loolu tax ñu ne li koy tee am indépendance mooy li supprimer ministre de justice lu koy remplace mooy autorité boo xam dañ koy élire. day am ab ab ele élé c'est-à-dire euh, euh, comité d'élection mooy day am ñoo xam ne nii mooy collège électoral boo xam ne nii day am ay représentants yoo xam ne nii sociaux yëpp mën naa am nag magistrat yi ëpp ci doole ndax conseil constitutionnel bii ñu jël normalement un homme du secteur privé war na baax na toog bu expérimenté ndax tribunal de commerce bi ay waa secteur privé ñoo may dem di jàppale juge yi seen décision moo tax ñun niñ ko gisee kii autorité autorité bi day am day yaatu ñi am xam-xamu atte danañ ca bari waaye ñi am xam-xamu kii danañ ci ñëw kon nag loolu mooy ma jox leen nag nan lañ a waxee léegi loolu mooy assemblée loolu mooy justice bi benn bi mooy ah

loolu lañ tey jël ñu di ko ko waxtaane tamit ba secteur privé am cadre institutionnel topp ku ne jóg créer sa association góor droit d'accord baax na mi ngi mel ne parti politique yi est-ce que bu parti politique yi dénk leen budget national dénk leen loi yi mënul dem lan leen def dañ ko dénk ensemble assemblée mooy lan ci parti ngay dem bu jëlee da nga mën a partool kon damay wax bi ñuy wax ne dialogue waaye dialogue dialogue dëgg assemblée mooy dialogue dialogue nation a dénk da nga koy xam ne mooy dialogue bi nga xam ne ñoom bu paree d'accord ci dara mën koo mais dialogue boo xam ne da toog dialogue ne lii laa d'accord nga andi ko ay nit mu wéyal ko nga andi yeneen ñu dindi ko kon ñi xam ne nii bu ñu defee nañ jàllale te ñoom lañ élire ñooñu nag soo gisee ci kaw damay nañ leen farfar boo xam ne ñoom tamit ba lañoo dem di jàllale nañu dem ci ñañu nekkoon laaj leen seen xalaat doog di dem jàllale ñu ci des yaakaar naa loolu ah, maam Abdou Aziz Sy wax na ko ne booy toog ci assemblée décidé xalaatal ëllëg ak xalaatal ëllëg yëpp. mooy ñi la éliroon xalaatal sa baat bi ñu leen jox xalaatal ëllëg yowmal xiyaam mu delloo kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi kon nag ma andi rek benn précision nan la ñuy créer 5 millions d'emplois programme bi su ma ko doon expliquer détail duñ fi jógee fii ak 6 heures euh, une une journée sax mënu koo présenter léegi nag li ma leen di jox mooy nan lañ mën a créer 5 millions d'emplois ou bien plus ci Sénégal. Ada mungkin. ma ñaan leen ngeen concentré wu ci lii lépp bu baax xam naa presse interview ne jël leen li may wax xam naa yéen koy bon man li may jox offre de gouvernance économique lii laa gën a xam def ci laa def ay réalisation benn penc mi def naa ay réalisation parce que chambre consulaire ak mairie loolu tamit penc mi la ak tamit gouvernance euh, gouvernance euh, des fonds publics mooy Sénégal ñun ñëpp dañoo xool ne les facteurs dama leen di présenté lan moo tax développé présenté leen lan lañ am ko pour privé dama war a développé par exemple yi yi ñu war a teg loo xam ne nii moo mën a créer si seen emploi créer leen leen na cadre nan lañ ko mën a gérer ndax boo lii lépp boo ko tegee te lii suuf taxaw tudd leen xam ngeen état bi faible ancrage de ak yelleefu doomu aadama ak respecté ak nit ñi ba police bii ci mel nii bu dajee citoyen xam ne moom dañ ko dégg sécurité mais kenn wax ko bu jëmee. fexe institution yi mu mu mu am crédit ci nit ñi fexe tamit ba nga xamee ne nii. compétitivité bi day nekk ci marché national compétitivité damay jël benn exemple rek ci ngeen taxaw lu tax coupe du monde bon xëy na c'est différent mais tubaab yi ñu doon commencé def bu ñu amee conférence de presse dañu am benn salle ci les journaux yi ak industrie bari ñu nekk kenn day filmé xool leen même bu ngeen a gis ci caméra vraiment da cee gis bu doon gis gis ñi ngeen koy filmé keneen na ngeen koy filmé pare jox leen ñu doon xoolal lii manque de compétitivité waaw te man maa ngi doon gouvernement bi gouvernement Sénégal en personne de président Macky Sall projet Diamniadio ci ñun la ko copié te mën naa ci am te mën naa ko témoin maag Pierre Goudiaby ñooñu doon liggéey ki ma jox document bi Seydou Sall laa jox document yi maa ko ko di ko copier ci jam yoon te mën ko defar. li tax ma mën mooy dañu def ay réunion ay réunion mais bu demee ba war a ñu kàjj la sànni la ci biir waaw mais mënuñu ko woon a wax waaye bu ba soxla yoon danañ ne leen lañ te lii lii la waxoon ci gànnaaw dañu waroon dañu doon fexe ba lépp am solo te doon état dafa dugal dërëm suuf si rek lañ joxe bàyyi ko nit ñi privé bi ñu euh, euh, def defal ñu ngi nii suñu fexee lu mel nii am ci Kaffrine Fatick am fa mën naa ne Kaolack mënoo ko defal lépp day jël ndox day boo rëndoo dem ba Koungheul lu baax nga ñuy dëgg bopp ma ko xamee ne mënut a dem Dakar kii li ma poussé ma jëli mairie kaw la waaye damaa la dem ba nga xam ne mairie boo ko bëggee def tamit bu ci état bi jàppul mënoo ko gaaw a def ndax li tax mënoo ko def sax ndax mën na daa réglé problème suuf rek ñu naan mairie ko yoroon ba secteur privé ko naan ko yoroon xëccoo bi doo ko mas a defar ci loolu dina may xajoo président Abdoulaye rek mais pour man boo ko defal dëgg yëpp Sénégal ñoo maag ay biir loolu la ñu koy tax mu am maanaam loolu ak Diourbel ku doon def da ngay xaj ci côté mu si ci côté foofu demee mel yooyu nga ko bu am doole bu nii boo xam ne da koy interconnecté ba nga ne trente quarante mille nit ki dem Touba trente quarante mille mu dem Louga trente quarante mille mu dem Diourbel su ngeen xoolee kàddu dina am na espace boo xam ne boo ko tegee trente yaa ngi région bi yëpp pôle bi trente quarante mille nga dem pour nekk pôle bi ci loolu mooy compétitivité mooy environnement bi ngay def nga mën caa dem daaw a daaw daaw xam nga bu ne lee tey diggante Touba ak ak Louga diggante Diourbel ak ak ak Louga suñu defoon lii Diourbel Louga c'est compliqué parce que xool leen ba fi mu posé da ngay yéeg obligé yéeg ba Touba dem daal moom si wàccaat ñu waat. loolu yëpp day def bon tout ça lu tax ma xam ko dama koy jaar ci Sénégal doon ko ci yëpp suñu doon ko def ko tuuru fan lañ koy jaaree doon def kii fan lañ koy jaaree fan lañ koy jaaree loolu lépp dafa am importance parce que tey ku bëggoon a defar defar bu baax dama la jox exemple mën naa am lii boo amee xaalis moo gën boo amee xaalis waaye autoroute Ila Touba tracé bi baaxul te wax naa ko état tracé bi gënoon a baax mu nekk entre route nationale numéro un route nationale numéro deux bi day leru capital régional yëpp capital départemental yëpp day leru Thiès leru Xombal leru Bambey leru beneen côté mu leru tuuti Mbour leru Fatick leru yëpp génn ji Gosaas nga xaj ko mu day defar ba du kaw di jëlaat ay 300 milliards du loolu ko fa dee mënoon nga jël loolu bu jeex kon tey am na ñaari waxtu dangay waxtu Ila Touba wala nga waxtu Ila Ila Touba parce que à partir de Gossas boo defee benn presse rek jeex Fatick daf koy am Mbour am ko côté lii am ko yëpp am ko kon li ci def loolu lépp rek la ko te bañ koy xalaat ñëw naa ne leen lii ngeen def baaxul ñu ne équipe lañ ko mën a mën ko laaj leen secteur ñu laaj ñu ne ñu ne leen ñu baax léegi ils sont obligés di jëlaat autant parce que ñoom sax daawul fay impôt fay ñu impôt pour euh, retenir à jël fay impôt moom mooy nga jël sa kii dem déclaré bind fay waaye loo xam ne dañ la koy jox ko fay impôt ah. Tamba kenn kii moom moo war a am vrai mag boo ko defee da ngay capter économie jëlal Tambacounda boo ko jëlee am nañ frontière ak Guinée am nañ frontière ak Mauritanie am nañ frontière ak Guinée Bissau am nañ frontière ak Guinée am nañ frontière ak Gambie boo ko defee dëkk bu rafet bu baax dëkk yooyu ñooñu jënd kër yi di fa consommer di fa def yëpp di fa def tourisme tey ànd ko nga jigéen solo moom fu am tourisme rek moom dafa kenn ku ne tey xëy na bu ne la woon kaay nga defal la dëkk bu baax nga am pratiqué nga am lépp nga dem ci yoon lool daal ko mën a te ci loolu tamit ma wax leen pour mën a suñu capacité constamment constitution sénégalaise des activités maritimes histoire am mooy lan mooy joolaa lañ joxoon armée bi mosu ñu ne ñun mënuñ ko defar dem jëlee ay Marocains ak ay Euh, marocain ak ay ah ak indonésien ñu di ko defal mais ñu ngi ko wax président mën nañu ko def bañ ko waxee waa banque mondiale ñoo dëkk ci kaw sëriñ ko ah kii doomu daara kii di jaay nii kii di jaay nii ma ne président jox ñu ko nañ la ko defal ma dem seeti aali ay maratariat ñu ànd ko suñu woon ñun du dox te li ci gën a neex mooy dem petit daax ne ma ña fa nekk bu ñu ko defee ci ñu doon teral naan bu ñu ko yokk ñii dañ koy yàq mais ñoom lañ jëlaat ne leen kaay leen ngeen defal mu ngi nii. sëy bi nii sii nii ci la bokkoon dund tam yi nekk ministre tey ci la bokkoon pour ma wax la ne Sénégalais yi am nañ capacité liggéey ñoo ko defal ba muy daw te dañu doon wax mënta nekk xamoon na jur sax rupture de relation Sénégal Maroc bii dund. mais président Abdoulaye Wade taxaw ne man Sénégalais yi laa ko jox taxaw ne Sénégalais yi laa ko jox. histoire mi ngi dugg leen ci internet rek ngeen tàppe Kousama Kousama ngeen tàppe lépp a ci biir Sénégal dañuy fàttali rek waaye bon lii mooy projet yi nga xam ne nii moo am ci ci Sénégal yi projet yu mag yi ñu recensé ko ci benn site voilà ñun biir ci am. sur ci ëpp de mooy doomu Excaf bi nga niveau de reprise pour des 5 milliards d'investissements hein, ah boo xam ne nii day créé 2000 emplois direct, yu fay liggéey ak 20000 emplois indirects lan mooy indirect mooy usine bi lay liggéey avec 2000 emplois indirect comme nous ko parce que fa ñuy pas ko tool ak ñoo ko ñoo ak jël ko jox ko ci tailleur yi artisan yi ñëw ko ndax tey ñu ngi développé ci ñaw mais lépp li réew la jógee bu casse textile amoon bi ñu subi ko tout de suite tout de suite ñun tey moom lu ñuy def rek gars yi ñu yor bu dara yàqoo rek yàq muy monnaie muy lekk muy li ñuy sol muy li ñuy def def Sénégalais ñu ngi góorgóorlu ñu ngi góorgóorlu ba démarrer dara mais boo démarrer dara. li leen ñuy may doole mooy nga mën ko multiplier multiplier pour mu yomb mais loolu tant que facteur de développement yi réglé wuñ ko mooy facteur foncier fiscal électricité transport logistique ak encadrement et protection des entreprises facteurs yooyu bu ñu ko réglé wul dañuy wax rek développement mais du am ba mukk voilà ñun projet Tra ñu lañ ko bëgg a gérer. Fane Mor yaay dem Kaolack nekk ministre de la mooy dañu nommé six ministres d'État président moom mooy consolider liggéeyu gouvernement territorial yi ak élus locaux ak secteur privé ñetti ñooñu dañoo nekk région yi kenn ku leen di xëccoo wala kenn ku leen def da ngay def mais amul lu leen coordonné xam nga moom kan moo leen coordonné Dakar leen di coordonné mais il faut mu am ku toog am autorité mën a coordonné liggéey maire bi bu amee problème ak service financier yi mu def seen ministre de finance kee mooy doon ambassadeur dëgg ci moom lay def kooku remonté wala wala la def tax ñu jox ko ministre de l'État dañu leen ministre d'État boobu am autorité ci ministre sectoriel ministre am ci autorité parce que naaj lu bari ak sama experts yi non jox ko mu nekk secrétaire d'État man réew ñi ma ko gis dañ ko jox autorité ba nga xam ne day jox ko instruction kooku dem discuter premier ministre mu am ko defal li mu bëgg mu am nag direction générale ci autorité am boo xam ne day nekk partenariat ak investissement mënoo nekk fii def partenariat bi bi bi ko traité Dakar mais demal ba Thiès ñu waa Thiès ñu traité ko wala demal ba Kédougou ñu traité ko boo ko seetee secteur privé investissement partenariat ak yëpp mu am direction générale toog fii ministre nga daan naan naa la defar tali yow xa kawoon naa la defar tali xaaxu déedéet développement des infrastructures ci kooku lay dépendre moom mooy def études yi mooy def travaux yi mooy def aménagement yi ci ñoom lay dépendre ci structure waa Dakar la yoon nañu nekk ñoom appui ak rek appui budgétaire wala appui technique rek lañ ko mën a indi mais décision bii la ñuy def et loolu mooy entreprise sawar dem installé Kédougou ndax bu ñu xamee ne année bii am na marché Kédougou 500 milliards wala 800 milliards ñu ne attention dafa nekk en fait ne ko soo fi amul siège du ma la ko jox bu boobaa di ngeen mu am suivi évaluation liggéey bu dul am suivi évaluation d'un organe indépendant ñun li tax ñu xam mooy suñu gisal bi tuuti da ngay bëgg a def dara sax ñu ne la toog 好，你。